yéen ñii di suivre suñu kër gi di Faaida TV bu ngeen bëggee di jot ci suñuy programme ak di seetaan suñuy vidéo da ngeen di abonné ci seen bii di Faaida TV ngir abonné da ngeen di bës ci bind bu xonk bi ñu bind abonné waaye bu leen fàttee bës kolos bi ngir man di jot suñuy notification waaye bu leen di fàttee sem tey partagé suñuy vidéo ak Faaida TV njariñ kase la leen di jural ku deful li ngay def lii un million la maa la ko jox un million la xoolal du jaxal de sa mbokk yi bu ñëw boo ñibeeg loxoy neen de boo paree jëndee ko ndam bu la neexee man maa la ko may maa ko dimbalee sa daara dimbale sa taxawaay ci alxuraan dimbale la li ngay daj ci Sud FM dimbale ci conférence yi ci dépense yi dimbale ci wuutu rasulilaay kii un million la kaay fii ma génne ko nga xool bala ngaa dugg ci néeg bi wàññi ko ne matul <laughs> ñaar juróom juróom benn juróom ñett fukk maa la may un million bii sama doom nga sama njaboot te bañoo ci suñu ànd dara soo ci bañoon dara du teema teral man ku ma téye ma téye la soo ma wàccee duma la dabi yaa ko moom sa famille moomuñu ko nañ ko xam nañ xam lu wóor yóbbaale loolu yow mii yaa moom su la neexee nag fi ba déwén wala ba weer wi ñu lay defaral rek affaire yi ma xam. waaw moom